alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb àllarbay tey jii la ca gën a fës Jules Balde di magi Ama Balde moo jël kàddu yëkkati di xamle ne ñoom fi mu toll nii tourné nañu page bu Modou Lo ndax Modou Lo boobaak léegi ñi ngi koy xaar lu tollook ñaari at jàpp ñetti at ñi ngi xaar kii di Modou Lo ñëw ñu bëre kon fi nii. CNG may nañu ñu tourné dem xooli beneen promoteur xooli beneen adversaire ngir mën bëre ak moom ca adversaire yooyu nga xam si ni pare nañ pour jàkkaarloog loolu mën naa ne ndax mën nañ ko may revanche waaye suñu combat ak Gris Bordeaux loolee combat jànq la ñaari combat yooyee bu ci ñëw baax na waaye fi mu toll nii xaar bi yàgg na te lañ dépensé ci ay millions mënuñu koo calculer suñu diggante ak Modou Lo dañ caa financé financé ba jeexal moo tax fi nii mënatuñ koo xaar tourné nañ ko waaye nag lu ma gën a metti mooy ñàkk bëri gi ñàkk bëri muurloo waaye tôt ou tard saa laalee dinañ ko daan ñi nga xam te ni ñoo absenté woon ci drapeau chef de l'état bi moo di Ibou Ndiaye ñoo xa bàyyi ak suñu lam ñu xam ne teewuñu woon ca drapeau chef de l'état bi ak ñaari woykat yi mu di ajaandi kucun xam si ni moo di nabu yaa daan ñoom it teewuñu woon foofee ca drapeau chef de l'état bi ki def retour gagnant ci drapeau chef de l'état bi mooy moo yóbbu woon Zallo mu daan ki nga xam si ni mooy Yaxya Joob Yékini waaye tamit gis nga ko 2022 moo yóbbu équipe bu Dakar mu jël drapeau chef de l'état bi ñi nga xam si ni bàkku si lañ fa defoon nekk fay star moo di ordinateur ak ki nga xam si ni moo di général bu Malika ñoom ñaar ñëwoon nañ yëngal def ambiance ki nga xam si ni mooy Ndey Faatu Adama Jali suñu laam mu ñu xamal ne réussir na tamit drapeau chef de l'état mbéyang lum la àndaloon ci way yi waaye yëngal nañ foofee nga xam si ni mooy diwaanu Jurbel ki nga xam si ni moo di Zarko suñu la mu ñu xamal ne dimanche la war a bëre waaye tey jii ci mercredi ci lay def open press am foofee nga xam si ni mooy tere Adrien Senghor bu Grand Yoff fa lay defee li nga xam si ni moo di open press ñi war a def seen dernière jàkkaarloo laataa ñuy laale moo di ma Lamine ak gërgëd ca mbaaw lañ koy defee samedi 14 mai bii nii ci lañ koy def foofe ca stade bu mbaaw combat Lac Rose digganteem ak Ama Neex Omes Diagne ma ngay analyser boobule combat waaye ma ngi cee ne duy cinquante cinquante ku ci nekk mën ngaa daan sa morom moo tax ma jàpp ne cinquante cinquante la waaye Lagrosse am na combat bu rëy am na combat bu moo di Bébé Bismi ma ngay xamal Jaxal yow jaaxaloo ma le 19 juin boo ñëwee di nga xam ne yaa ma gën a féete xale wala maa la mag lépp dina leer waaye en tout loo indi di nga ko fi fekk ndax dara du yomb ki nga xam ni moo gëj a dégg félicitation moo di Mbaye Diouf bu Bawol suñu lam mu ñu xamal ne 17 ans ngi nii amul victoire six défaites yu tegaloo la ci am te ngi war a jàkkaarloog xale boo xam si ni moo di Youssou Ndour le 22 mai ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje niki suba incha allah.